di leen ko jébbal moo xam jumtukaay la ak lépp loo xam ne rek daara yi war nañ ko yittewoo rawatina jàppale tutànk yi nga xam ne ñoo ciy jàngee. ñoom nag su weesoo ndimbal yooyu nga xam ne ñu ngi koy débbal daara yi dañoo ñëwoon ci sëriñ bi doon ko jébbal seen addiya ci ziar boo xam ne amal nañ ko. ci résidence xaadim rasul jébbal sëriñ bi seenub ziara mu ñaanal leen waaye it ñu leeral ko liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal mu jëm ci mbooleem daara yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi. ñooñu ahlu xidma muy ndey daara yi nga xam ne dañoo jàppoo di jàppale daara nag suñu liggéey fii nga xam ne mooy suñu rôle ci daara yi mooy dañuy fas yéene di fóotal donga daara yi di leen taxawu ci tibbal leen ay ndab yu baax ba nga xam ne dañuy tàqalikoo ak yalwaan mi nga xam ne dañ leen koy saraxte du doon anam ba nga xam ne moo moo gën nday daara yi jóg doon seeni yaay ci biir daara yi nga xam ne bu ñu leen taxawoo ci setal dañ leen di taxawoo ci lekk ndaxte donga yaakaar naa ne balaa mën a jàng dafay lekk balaa mën a am wér yaram dafay set ñuy setal daara yi bu baax a baax a baax boole ci dina def suñuy fukk-fukk yoo xam ne nii weer wu nekk juróom fukk la ñu di ko dajee ngir di ko ah, dugal ci biir daara yi lépp lu manqué ci daara yi ñu di ko ci mottali loolu mooy suñu lor ñu ya suñu lor ñu ndey daara yi ñu walbati ko itam di di di di nga xam ne nii ñu ngi taxawu dongo yi ci wér-gu-yaram ndax donga bu amul wér-gu-yaram du man a jàng waaye wér yaram li ci jiitu muy set ñuy dugg ci biir daara yi di ko setal bu baax a baax a baax a baax bu ñu leen footalee ba seeni yére set danañ setal daara yi waaye danañ leen taxaw ci wér-gu-yaram àndandoo ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wér yaram yi ndax ndey daara moom amul frontière fépp lay dugg ci biir li nga xam ne nii koo xam ne nii dana fa dem rek pour ñu taxaw doomam yi danañ fa dem taxaw doomam yi loolu mooy suñu rôle fii ci eh, Touba. ñu Euh, daay na seen koñ ñu jàppale leen ci fóot jàppale leen ci ay te bu jël bool yi ci ci kër yi den tibbal ci ci nit yi ci seen ci nit ya dañuy tibbal comme seen borom kër ya ñu ñaan jigéen ñëpp def comme noonu dong ay seen yalaan wàññeeku ñu leen di fóotal di leen tibbal di leen mbaleel ba eh, ñi nga xam ne ñoo xeex islaam di xeex daara duñ gis luñ man a xeex du gis luñ mën a saboota gis luñ man a duñ a yàq deru daara ñuy ñaan laa sëñ Muntaxa moom yàgg fi te wér te sëñ Muntaxa képp kay bëgg a liggéeyal ne mën na ci alxuraan ko liggéey ndax moom waxam jépp alxuraan la la la digle jàng ko ak di ko jàngale ak taxawu ko yitteem yëpp lool la leneen leneen nekku ca alxuraan rek comme ni ko sëñ bu mag bi bëggee woon ak magam yu baax yi ko jiitu niñ ko bëggee woon moo tax ñu ñu jóg takkatoo fas yéene nag suñu liggéey lépp ñu ngi ko jëmale ci ci daara ak jàppale sëriñ daara yi ndax sëriñ daara yi jàmbaar lañ lool waaye nag ku leen gën a jàppaleet yàlla dana ko gis su yitte yëpp daal fas nañu ko yéene def ci daara ñu ngi sant ñëpp nag mboolem ko fi toog rek ci xidma bi jàppoo jàppale daara ñu ngi sant ñëpp. ñett ñu ni ñoo xam ni ëllëg yomal xiyaam suñu borom dana wax ne bu leen gis yéen tiir tiir yomal xiyaam mooy ñan ñu daan yëkkati ab sarax di ko jox dong ab daara muy borom kër bi ko liggéey indi ko ak soxna si xam moo ko génne ak mbindaan mi xam moom la ko jox mu yóbbu ko kon léegi yéen seen jëf yi ngeen jëf jëfal ko alxuraan jëfal ko Serigne Touba ci dëkk dëkkam bii lu am solo la kon nag ñu góor góorlu ci baax a baax Serigne Touba waxoon na ni kaw nii xaadima nabi wal kitaab fadlun min al wahaabi laa min iktisaab liggéeyal alxuraan liggéeyal euh, euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu suñ borom li baaxee jàmbil waaye du lu du jomb di fàggu kon yéen bu leen suñ borom baaxee ngeen bokk ci mbooloo moom yi doon sant bu baax a baax a baax man nag ma wax ci ay aw bayit ci bayit woowu sëñ Tuubaa wax ma ni euh, liggéeyal sëriñ Tuubaa ci alxuraan ci dëkkam bii ngëneelu suñ borom la ndax lan téere bi mooy li gën a màgg ci kaw suuf sëriñ tubaa mi ngi koy liggéeyal mooy wali yu gën a màgg ci kaw suuf dëkkam bii tubaa mooy dëkk bi ko gën a bi gënal suñ borom ci kaw suuf kon nag suñu borom baaxee loolee doon sant baax baax feddi laxasaay fas yéene góor laal euh, euh, tëgg suñu ndigg fas yéene liggéeyal alxuraan liggéeyal xam-xam liggéeyal Serigne Touba ba làq ngërëm moom ndax ngërëm moom mooy àjjane ëllëg mooy texe ak tey mooy mucc àddina ak àllaaxira bismillaahi fii niin ak daala yàllaawum sawi baqaa abim bi fii ya Allah yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad li fika ya Allah wajatuka al yawma ya رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا أن منك يا الله مليء يميني وقل بزال يا مليك jërëjëf yéen mbooloo mi nga xam ne yéen ndeyu daara yi ñaan ak sëriñ Abdou Lahad Jaxate sëriñ Abdou mi ngi ni sëriñ bi jébbal na ko liggéey bi leeral na ko it maanaam liggéey bi nga xam ne indi ngeen ko fi mooy li jëm ci saabu ak keesu madaar ak omo ak ña ak juróom-benn fukki junni sëriñ Abdou Lahad bi nee na waaw leen góor na wax jigéen ñi waaw leen kumpa nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yéen ñëpp suñu borom dimbaliñ ba dajee tawfeex sëriñ Touba seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yéwén seen lépp gën di barkeel na ñëpp tàllal seen loxo tax amin tal waaye bëgg na ko fas ci ñaan gi ahlul xidma na ñëpp tàllal seen loxo ndayu daara yi na ñëpp tàllal seen loxo amin amin kon ñoo ngi fii ci buntu kër sëñ Touba gi taxaw ak sëñ Abdoul Ahad Diakhaté mi nga xam ne moo jiite liggéeyub ahlul xidma di aw jigéen ñoo xam ne ak góor ñoo xam dañoo maase ci liggéeyal alquran kon sëñ Abdoul Ahad dañ lay laaj ci siyaar bi ngeen jugoon doon ko def lan moo ko wundu daal ak eh, ahlul xidma ci ab liggéeyam ci lan la gën a jëm. ñu ngi nuyu bokk julli yi ñu saraan ci àddina bi yëpp leen xamal ne ñoo ngi fii ci Touba ci kër Cheikh Mouhamadou sëñ Touba gi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ànd ak waa ahlu xidmati yëpp di kuréelu ndey daara yi nekk biir Touba kuréelu ahlu xidmati jàppoo ngir jàppale daara yi tey nag ñëwoon fii siyaar Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir moom mooy sëñ daara bu mag bi ndax ñoom li seen yitteeg seen liggéey mooy fas yéene benn donga duutu tumuranke ci Touba benn donga duutu yalwaan benn donga duutu tilim loolu mooy seen yéene moo tax mboolem ci dëkk bi fu quartier nekk rek ak lu mu fa àgg sam fa kuréel yi su ko defee ñoom ñuy taxaw daara yi ci wàllu di leen fóotal wàllu di leen dundal wàllu itam fexe ba seen wér-gu-yaram mat kon loolu mooy seen liggéey ñu xam ne nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy suñ daara bi mag bi te li ñu war ci daara yëpp moo ñu war ci ay daaraam loolu moo taxaw ñu dajale suñuy addiyee jënd ci ay saabu ay madaar yu bëree bëri macha allah ay omo boole ci weccet Euh, loo xamante ne bii lim bu xaw a takku la macha allah ñu ñëw siyaare ko Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ñëw fii ci bëgg na lool ci siyaar bi kontaan na lool Euh, soñ na leen ñaax na leen itam xamal na leen mi ngi seen biir mi ngi seen kanam mi ngi seen gannaaw fas yéene ànd ak yéen bëgg a ànd ko lool te it mi ngi ñaan yàlla mu barkeel liggéey bi yàggal leen wéral leen yombalal leen itam ngeen di sàkku ba li ngeen yéene ci liggéeyal daara yàlla defal leen ko li ñu ahlu xidmati bu ëllëgee bu ñu nee ay ahlu xidmati yéen mbooloo mi kenn du leen ci jiitu ngeen jóg tabbi àjjana ndànk ci ak tey bu ngeen ànd benn coono ñëwoon nañ ndax ñoom la ñuy soxna yi di liggéeyal loolu moo tax liggéey bi ñoom it bàyyiwuñ ko soxna yi dañoo ñëw ànd ak ñoom ñu ñëw si Cheikh Mouhamadou Mountakha li ñu leen di ràññee mooy seen col yi wert yi ñu sol nga xam ne wert ku ne moo tax ñoom ahlu xidmati euh, seen col yi yi wert la ñu bind ci ahlu xidmati jàppoo ngir jàppale daara yi nga xam ne ñoom dañuy njëkk a boole nekk lënkaloo di jàppale daara yi ci anam gu sell gu mucc ayib nga xam ne euh, dañuy fóot di di tibb ay ndab wante it dañuy dajale seen i euh, dërëm bu ñu amee ñetti weer dajale ci benn place wersi ko su ko defee loolu nag dañ ci euh, liggéey ci yeneen daara yi nga xamante ne bi xay na amuñ kuréel yu leen jàppale euh, daara yi lu ñu soxla ñu mën a jël ci xaalis boobu mën dem dimbali leen kon loolu moo tax seen seen seen seen seen liggéey bi nekk liggéey bu am am solo comme ni ko waa Njaareem defee nga xam ne bekk dem rek ñu ngi gis seen poste santé bi ñu doon tabax daanaka noppi na te loolu ñu ngi ko jëlee ci seen xam ne li ngeen doon bi di ko liggéeyal yàlla na leen wóor na teg na ci loxo suñu borom sëñ Mountakha jot na ci bëgg na ci ñaan na ci te sëñ bi lu mu bëgg lu mu ñaan loola day jëm kanam day jëm barkeel kon nag képp koo xamante ne bii mbir ak guróom ci yow ñu ngi lay ñaan nga ñëw adhéré ci kuréel gi bokk ci ñuy liggéeyal l'islam bokk ci ñuy liggéeyal alxuraan su ko defee boo liggéeyee mu nekk ab denc boo xam ne da ngeen koy fekk seen biir bàmmeel mu nekk loo xamante ne bii dem da leen topp topp seenu njaboot jëwriñ ñi nga xamante ne bii ñu ngi fi ñoom ñëpp ñëw nañ kenn ku nekk la nga am ci addiya dajale nga ko indi ko kenn desut ñoom ñëpp ku ñu tudd ak ku ñu tuddul waaye eh, nañu xam ne daal li suñu wargal fi mu toll nii ba at mu jot ñu fas yéene ñëwaat sëñ bi xamal na ko noo ngi ñëwaat te bu ñu ñëwaat fii la nekk asaka yi ne bii mooy mooy ñëwaat fii te am nañ ci yaakaar ndax te yaakaar naa ne mboolem daayira yi fi ñëw mboolem kuréel yi fi ñëw benn bu ci toll ne ahlu xidmati amut xajuñ sax ci saal bi waaye sëriñ bi kontaan na yëg na ko bég na loolu nag maa leen koy seeral yéen ñëpp Ah, kon daal loolu moo doon kàddu yi. di am kontaan tey mbégte tey bi ñu tasee fii man la soxna Toora Ndiaye ndeyu daara jàkkee Serigne bay Ndiaye. ñu ànd ak mbooloo mi ñëpp ak ndey daara yëpp tey tase woon fii ci kër xalifa bi Cheikh Mountakha Bassirou doon ko siyaare doon ko jébbal suñu liggéey tey sàkku ci moom ay ñaan di ko ñaanal it moom itam suñu borom yàggal ko lool ci suñu kanam dëbb ko kàttan goo xam ne dina eggale mbooleem li mu naal ci liggéeyal maamam ju sell ji Cheikh Ahmad Bamba Khadimou Moustapha te ànd ko ñun ñun daal tey kontaan nañu yaay daara yi ñu ngi taxaw fii tey ànd ak Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne tey moo ñu jiitee ñu àndandoo jóge fu nekk ci biir dëkk bi muy fu biir dëkk bi doon yëbbale tey suñu siyaare ngir sëriñ bi ñaanal ñu ba suñu liggéey mën a yegg te ñuy musu ci seytaane ak cet akum ndog ba lépp lu ñu yéenee liggéeyal daaray alxuraan suñu borom dëbb ñu kàttan guñ ko defee ñu ñoom ñooy ndey daara yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di fóotal donga yi di leen balee daara yi di leen tibbal ay ndab yoo xam ne ni ñi nga koy tibbe fa ñuy tibbee añuy borom kër ya te ñi ngi ñi ngi boole ci di suñu ñaq di def ay fukk fukk yoo xam ne nii dañ ko joxe addiya ñetti weer yu ne xam ne manqué na ci daara yi rek ndey daara yooyu ñu ngi koy taxaw moo xam ay bassin la moo xam ay matelas la moo xam lu yàqu ci daara yi ñu war koo defar ba ci ay toilette te ba ci di sàkku di man am kàttan goo xam ne dinañ dem bay mën a am ay duudu ay ay camion citerne vidage yoo xam ne dañuy vider euh, mbooleem li nga xam ne mooy mooy foos yi euh, daara yi loolu ñëpp daal mooy taxawaayu euh, ndey daara ci seen yéene ak seen taxawaay ak seen liggéey kon ñu ngi sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ñu